asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi yéen a ngi fii seen chaîne Dakar People ñu ngi leen di di leen balu ak tey nag affaire santé lañ doon waxtaan ak yéen muy bato bi ñëw Sénégal ma nga fële ca port fas yéenee faj 3000 personnes la ñu wax ñoom lañu ñu war a faj bëri na bëriwul ci 15 millions sénégalais ñu jël si 3000 personnes loolu lépp lu baax la wante nag nañ ko teg ci yoon ndax fi mu nekk nii am na ñoo xam ni dañoo feebar feebar boo xam ni feebar yu metti la mais xamuñu nan la ñuy def ba dem faju foofu li gën nag. mooy ñu def ay publicité dem ci rajo yi ak télévision yi wan yoon askan wi ñu xam fa ñuy jaar ba mun na am accès ci bato boobu waaye ñu bëri xamuñu ko ñi ko xam daal mooy ñi nga xam ni seen ay famille ay sage-femme lañ wala ay docteur ñoo xam ne seen loxo jot na seen gannaaw ñoom ñoo xam fan la ñuy jublu ba mun a faju bu leen fàtte ni nit ñi am na ñoo xam ne xamuñu dara xamuñu géej gi di riir yëguñu ni sax ndax bato mi ngi Sénégal bu mun a faj ay nit ma waxaat ci mbirum formation yu ñuy wax dañuy former sage-femme yi ci bato bi bu ñu def xaj ak seen ndax ab fii sage-femme yi dañoo bari macha allah xale yi dañuy am seen bac dem def formation sage-femme ñëw toog amuñu liggéey nañ leen jàppale xale yi ñoom aussi ñu dem defal leen formation ndax ñu mun ci génn ngeen jàppale askan wi daal def ay publicité waxoon naa ko waxaat naa ko def leen ay publicité nit ñi xam fu ñuy jublu ndax ñu bëri xamuñu dara loolu lañu amoon lu ñuy wax ak yéen waa ministère de la santé ñoo war a yebal ay ndaw ci rajo ak télévision yi ñu mun a yee askan wi xamal leen fu ñuy war a teg seen tànk ba mun a yegsi si bato boobu loolu lañu amoon lu ñuy wax ak yéen ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon